ah bëgg naa jënd mais neexul neexul dara yow booy jaay jaay lu neex ah doo booy jaay doo jaay lu man ñëw ma de lii dafa neex du lii mooy deux cent ba merci am ah, bàyyi ko banaan bi neexul grand kay àtte ñu fii daf ma jaay banaana bi neexul ba pare mu bëgg ma fay fayu ma ma de fay pour lan ah fii li neexul waa léegi neexul dangay fay waa ngi yaa ngi fekk foofu bagage si jàmm nga jël foofu nga lekk nee na yaa ngi jël soow banana nga lekk nee ne du grand ñawal ñawal banana ñawal ñawal da fay forcé day fay da fay ma ne ko duma fay fay neex na lu tey jël soow nga lekk fel fel fel ah, mais aw ma xaalis waaw ma xaalis de am na xaalis amul xaalis eh, day fay mais baal ma baal ko baal ko waay moom. déedéet baaluma ko de dangay fay man nii lay jëndee dangay fay yow. day fay de yow ay moom yow ay moom alhamdulilah. yow de yow de dañuy foo. yow de yow de dañuy foo.